discours à la nation bu dal xel ndax présence djomay fay dafa lal ay secteurs yu concerné Sénégal ndimbal Nous avons baykat yi dootul jaar ci yenn loxo yu kay ni mu leen nous day dem directement ci baykat bi dañu nous yoon wu muy mëna ci baykat bi la Nous xaar ay at té mom bu ko waxé xam na ndax lu mu pratiquer la te xam na bu baax nax yi ñuy nax baykat yi di leen bubboo chaque année yu jël ci nguur gi lu dul yegg ci baykat yi ci distribution semence bi ba ci récolte bi ak itam bu ñuy collecter gerte gi di ko jëndaat ci baykat bi dañu dëkk di ko exploiter di ko use te ñu koy def ñëpp di dunde deretu baykat yi duñu ay baykat ay tekkatu dil lañu merci monsieur le président Bassirou Diomaye Faye wax na itam protection bi ñuy protéger ki nga xam fay dénoncer di siiwal naxekat yi tekkatu diil yi yi détourner askan yi dafa am ñoo xam dañu nekk ay victimes ci dénoncer ak ay ak tekatu dil ñu tout leen diffamation yóbbu leen ci juge voilà te ki génne xibaar bi moo ci dëgg

yokkaati pétrole gaz bi nek ci suñu kanam merci monsieur le président am fukki at ak juróom-ñett wuti ñaar fukki at ñu lay bindal ci sa keuyit ne peut pas voter te ñu def ay milliards ci indi fi carte d'identité biométrique caaxaan la wax deug yalla war nañu soppi geneen anam bu ku bëgg voter mën nga voter ndax vote du obligatoire tey fi nekk nii képp ku carte d'identité biométrique mën a dem vote ji bu vote jotee itam bu la neexee doo vote ji ndax vote du obligatoire kon forcément ki am 18 ans dafa war a voter directement ak automatiquement merci monsieur le président li nga déggee suñu ay cadre yu jàmbat yeneen ci ay tomb yu am solo yo xam lal na ko te Sénégal yi bëggoon na mu laal ko lu ci melni ni muy kuréel gu moom boppam tey saytu élection yi non ak Sénat

la basti di wax kon xam na ne président Macky Sall am na lu mu entamé bien sûr que oui ndax que dugub mom lu mu nay nay nay ko am yu sans doute waye boko quelque part itam bu fa max fekk ko fa dañu ci gestion ay max jéggi def réalisation ci Sénégal ndam fexe ba sàcc yi sàcc alal askuri bañ ko sàcc mooy ndam te bu ngeen xoolee vote massif bi Sénégalais yi def pour seen nguur gi jeex pour ngeen jóge fi xam ngeen ni seen gestion baaxul yéen waa APR ñu ngi am yaakaar ci ëllëgu Sénégal ak annonce yu am solo yu bàyyeekoo ci président Bassirou Diomaye fay